leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook l'info yéenekaay bi des waat ci wàccaayu élection présidentielle yi nga xamante ni bu ñuy xool ñeenti fan donga des ñu jëm ci bis bi nga xam ne moom la ñëpp doon xaar sénégalais yi war a tànn kii wuutu président Macky Sall ci biir pale bi waa mouvement F24 nag di renouveler seen engagement nag ci vote bii tey xam le ne xeex bi xaajagul bay jeex doonte fexe nañu ba président Macky Sall mii nag du bokk ci élection présidentielle yi tentative de coup d'état bi ñu doon séntu tamit ci biir réew mi fexe nañu ba ñu reporté ko def nañ fi ay mobilisation mobilisation mobilisation bu dul bu jinne rek ñun organiser nañ ko ñun waa F24 waaye nag jamono ji la takku taxaw na gën a nekk farata ñu sécuriser vote bi yéenekaay bi di ñu xamal nii waa F24 ñu ngi fàttali candidat yi ne liggéey boo leen mënti liggéey laa la wax ci campagne bi li ci ëpp solo mooy bisu vote bi ñu fexe ba sécuriser vote bi nañu fexe ba résultat yi ñuy génnee mu dëppoo ak li nekk ci biir urne yi li Sénégalais yi voté tànn seen président bi ñu wóolu lii rek la ñuy ñaan nag état bu Sénégal comme ça coow du am na ci élection présidentielle yi yemuñ ca ñoom waa f administration bi nga xamante ni moom mooy organiser élection yi am na ci yenn yoo xamante ni ñu ko jiite nag dañoo far tafaruñu fenn nag fudul ci camp présidentiel bi ndax booy xool ministre de l'intérieur bi organiser élection yi ñëpp xam nañu ne candidat bii di Amadou Ba la gën a jege boo demee ci direction générale des élections kañu ko dénk tamit moom la gën a jege ay personnalité politique yoo xamante ni dalay wóor na la jege nañu lool na nguur gi jege mouvance présidentielle bi nga xamante ni Amadou Ba mooy seen candidat moo tax transparence pour mu am ci élection yi il faut que candidat yépp nag di takk ko taxaw civile bi tamit daal di takk seeni i ndigg ñu fexe ba sécuriser vote bi yéenekaay bi dañu xamal ni ñoom waa F24 nag jël nañ seen engagement sàkku ci ministre de l'intérieur nag ay garantie pour ñu amee élection yu leer naññi résultat yu kenn dul contesté ndax sonn nañu dee nañu tàyyi nañ nag ci xeex bi yëmuñ ca ñoom waa F24 ndax ñu ngi sàkku ci enseignants yi étudiants yi ak sénégalais yii nag ñu daal di takku taxaw sécuriser seen bopp nag élection yi ci centre de vote yi ci bureau de vote yi procès verbaux yëpp nag ñu teel koo génnee benn falsification mu am nag ci résultat élection présidentielle yi yi surtout nag bëgguñoo dégg benn bureau fictif ay bureau yoo xamante ni am na ñu fay voté bureau yooyu kenn mënu koo teg bët bëgguñ mu am ci élection présidentielle yi Le Quotidien yéen kaay bi yi nag dafa mel ne dafa commencé am nag seen décision officielle am na ñenn ci ñoom ñoo xamante ni commencé nañoo wone couleur bi ñëw bi ne fukki député ak ñaar fukki responsable de fédération décidé nañu laa la wax ànd candidat wu benn bokk yaakaar bii di Amadou Ba Touba donte bu nu sukkandikoo ci Karim Meïssa Wade nee na position officielle bu PDS mates na ko xam ci heure yi ñu jëm maanaam fi ak suba bés bi le jour moom jommi jommet la def ci kàddug meerug Ourossogui bii Moussa Bokar ak li mu wax olof yi wax dëgg yàlla àndut ak campagne lii nag mën naa frustré sénégalais yi rawatina yenn ci ay wolof te coow li fi mu toll nii mu koy bëgg a ëppi loxo yéenekaay bi def ci taxaw seetlu te xamal ni directoire de campagne yu Ba sax laa la wax neexu leen ndax kàddug féewaloo la kàddu yoo xamante ni day xàjjale rafetul benn yoon nag ci moom surtout nag mu bokk ci camp wu Amadou Ba te scénario bii nag amoon na fi en 2012 ci diwaanu Matam ak Podor kaddu ya fi maître Abdoulaye Wade yëkkati woon moo ko yóbbee woon deuxième tour de gars sot ko daat koy daan Idrissa Seck moom li mu gëm mooy programme bi nga xamante ni moom la duppee pacte moo gën fuufu junne yoon projet Pastef bi nga xamante ni Bassirou Diomaye Faye moo ko porté fekk jamono jooju Amadou Ba moom donte nag bunt Abdoulaye Jonn candidat la waaye nag mu ngi koy tàllal loxo sàkku ci moom nag mu ñëw jàppale ko Vox Populi ubbi xët bu yaat ci taxawaayu PDS rawatina ci élection présidentielle yi ban candidat lañ fa yéenee jàppale yéenekaay bi ne booy xool ba xool de Karim Meïssa Wade léegi mu ngi ci terrain bi ndax candidat bu nekk yaa ngi koy bàyyi xel ban candidat la fas yéenee rangé pour jàppale ko ñeel élection présidentielle yi lii moo jara laajte en tout cas fi mu toll nii la gën a seetlu nag ci biir PDS xamante ni commencé naa am ci position yi ndax ñii bu ñu bëggee boycotté élection yi am na ñoo xamante nii moom commencé nañ sax déjà jël seen position booy njott sax da ngay yaakaar ne PDS bi ci xaajaloo lañ fas yéenee jëm maanaam organe bu nekk xool ka la neex nga daal di ànd ak moom soutenir ko ndax bu ñu seetloo ancien membre UJTL yii ñoom de Idrissa Seck la ñu joxoñ ndax bu dul dara maître Abdoulaye Wade daf fi waxoon ne libéraux yii war nañ leen mën dooleel ñu toog ci nguur gi ne lu tolloog juróom fukki at te gisuñu beneen candidat libéral bu weesu Idrissa Seck donte nag bu ñu sukkandikoo ci Karim Meïssa Wade nee na balaay jouru élection yi dinañu xam PDS ban candidat la ñuy jàppale ci élection présidentielle yi fekk jamono jooju Khalifa Ababacar Sall moom mu nga woon ci diwaanu Casamance yëkkati fa bu Sénégal laa la wax Casamance mii nga xamante ne nii ay richesse kese nag la am ci wàllu économie moom bés bu nekkee président de la république dina gën a dooleel Casamance jàppale doomam yi nga xamante ni ay jàmbaar lañu Bassirou Diomaye fay ci biir yéenekaay bi di tontu Amadou Ba ma yëkkati woon ay kàddu teg ko ci ndoddam jàpp ne moom Bassirou Diomaye Faye nag danger la ci biir réew mi candidat wu président Ousmane Sonko bii di xam ne ci biir yéenekaay bi ne man kay su ma dee danger moom danger rek laa mën a doon ci sàcckat yi bu dul loolu mënumaa nekk danger nag ci askanu Sénégal gii lenn laa mënul wanaasu moo di gis askan bi di sonn ay kilifa di dund ci seen kaw Sonko lii rek laa mën a nekkee danger nag ci ñenn ñi yéenekaay bi na Amadou Ba da ci diwaanu Jurbel ak Ndoukoumane ah gars yi recevoir nañ ko fa de mobilisation bu exceptionnelle la Abdoulaye Seydou Sow def ba noppi nag teg ci di gaaruwaale Habib Sy Cheikh Tidiane Dièye Diomaye Faye ba ci Khalifa Sall Pape Djibril Fall moom ci biir yéenekaay bi di xamle ne bés bu ma nekkee président de la République laa la wax problème mu infrastructure moom ci réew mi lu ñuy jéggi la nag ci diwaanu Thiès Thierno Alassane Sall di engagé wu ci licence de pêche yi nga xamante ni moo tax ndaw yu bëri bàyyi napp gii dem ci barsaak barsaak gi yi moom bés bu yoree nguur gi nag lépp dana jeex le point actu def taxaw seetlu ci PDS mi nga xamante ne nii ku mu jàppale jamono jii ah say buntu mën na leer de mën nga gagné élection présidentielle yi yéeni bi di ñu xamal ni yenn ci ay membre PDS li ñu bëgg moo di boycotté élection présidentielle yi bu ñu jàppale benn candidat waaye nag am na ñoo xamante ni bu ñu sañoon ñu bàyyi leen rek kenn ku ci nekk ka mu sentir ci candidat daat koy soutenir moom Karim Meïssa Wade ci biir yéeni kaay bi ne Khalifa Ababacar Sall laa wax jokkoon na ak man waxtaan nañu lu yàgg a yàgg lépp ngir bëgg PDS ñëw jàpp jàppale ko ci élection présidentielle yi fekk jamono jooju waa UJTL moom ancien membre yi moom jël nañ seen position ci Idrissa Seck ba noppi yéenekaay bi nag xamal nañu ne jëlagul benn décision bu officielle jël na lépp nag jébbal baay ba waaye li wértéer moo di moom duñu am position bu neutre jamono ji nag PDS jëlagul benn position ci waxtu yi ñu jëm nag ñu xam ban candidat la ñuy jàppale ci élection présidentielle yi Makhtar Cissé ministre de l'intérieur moom di garantir élection yu jaar yoon leer nañ ñ transparente source à def taxaw seetlu ci Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne ñett yi daal bëgg nañu régler ko balaa ñuy jëm ci élection présidentielle yi te benn bi sax bu ñu sukkandikoo ci président Ousmane Sonko weesuwul ndaw ñiy dem jëli gi nag seeni carte électeur ndax bu ñu sukkandikoo ci njiital Pastef mu ngi xam le ci biir yéenekaay bi ne topp ci ndiiraan gii nag ci caravane yi campagne bi te jëliwoo leen seen carte électeur mënul fal nag Bassirou Diomaye Faye ñaareelu problème bi moo di wayjur yi nga ni ñu ci bëri ba léegi si laa la wax dañoo neex a nax il faut que leen jël temps de bi li ci des yépp nag jublu ko ci ñoom conscientiser leen ñoom mag ñooñu ñetteel bi nag moom suñu mbiru bopp la li wértéer moo di matal guñu suñu campagne nag ci région yépp waaye nag stratégie rek stratégie rek na ndaw ñi wàcc ci terrain bi dem ci quartier yeeg village yi féetee ñu fa ñu mënul yegg xam ne ñoom ñoo ñu fa mën a yeggal ba tey yéenekaay bi des ci yenn ci ay candidat lañuy promettre laa la wax ci campagne électorale bi bokk na ci Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne ci diwaanu Kaolack dig na leen benn projet bu toll ci milliards orienté ko nag ci autosuffisance kase dong nag maa ci liggéey ci wàllum développement ñaar fukki atu yàlla yoo xamante ni nii bu dee expérience rek nu ñuy doxalee réew ci man la fekk baax xamul beneen candidat bu fi liggéey ci wàllum développement ñaar fukki at ak lu teg Pape Djibril Fall moom di xam la ci biir yéenekaay bi ne bëgg naa ngaay mexe nekk symbolu développement sut nag ci wàllum artisanat Idrissa sekk moom ci diwaanu Thiénaba la demoon waaye xalif bi xamal na ko ne nitu jàmm kase nga ñaanal na ko ba noppi sant ko gërëm ko xamal ko ne ko musuma dégg wax ju ñaaw boo yëkkate wala nga jëf ko ci réew mi Amadou Ba ca diwaanu Kaffrine moom na Sénégal Guinée région a beesaat nekkaat dëgg dëgg na capital du rail ba tey yéenekaay bi des ci candidat bii di Bassirou Diomaye Faye ak baleem bi nga xamante ni nii mu ngi ko duppee sax bale mystique démb ci caravanam bii ak lam ci expliqué fa mu ko jëleeg la mu ciy junjul lépp ngi ci biir yéenekaay bi l'exclusif yéenekaay ne élection présidentielle yi daal bu fekkee ne am na favori weesuwul juróomi kan candidat yi de ñoom ñooy kente gagnant 24 mars bi ñu jëm na Amadou Ba mën na gagné élection yi na gagné élection yi Aliou Mamadou Dia bu parti ñii la yéenekaay bi jàppee kente gagnant nag bu élection présidentielle yi L'Observateur ne en tout cas li wérti wër mooy campagne bi ba mu démarré ba léegi si na ci yenn candidat yoo xam ne moom ful kenn gisu ko ci seen ginnaaw ñenn ñi tamit seen défi lenn kese la mooy def mobilisation campagne bi yépp nag loolu kese mooy farata waaye yéenekaay bi taxaw na ci seetlu ci fuul boobu nag nekk ci ginnaaw candidat yi ne est bi am na doole ak sax ban façon ce que ñii di ñëw ci seeni caravane ak seeni mobilisation topp leen ñoom ñoo leen di votel nag ci élection présidentielle yii foofu nag la problème bi nekk nekk ci xef yi nag moom nekk ci xol yi moo ko gën fuufu junne yoon waaw kay nañ la jënti loolu ba noppi boo koy continuer di abonné ko bàyyi xel seen YouTube bi di Mourchid TV tey gën a bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar ñu yendoog jàmm salaam ba suba ak allah.